internet yu seetaan site bi di wasaare people 221 nuyu nañu leen bu baax tey ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi file cité Damel euh, si nakar actrice bi nga xamante ne ni dal ci seen benn wax euh, Bouna euh, gannaaw ba mu demee fale ci place bi ngir sangu ci la gis nag benn xale boo xamante ni mu ngi doon lap ci la ko dem nag ngir sauver yàlla jaaree foofu daal di yóbbu li nga xamante ni moo di bakkanam comme ñu waa wasaare ni ñu koy defee loolu moo tax ñu ñëw file ngir mën a gis kenn ci ay waajuram wala ñenn ci ay xaritam bu ko defee ñu jox ñu jox ñu ay explication ci mbir yi nga xamante ne ni information bi nga xam ne dégg nañ ko si naka la demee na am ndax jot na am jabar wala doom wala loolu lépp dinañu ko taataan ci li nga xamante ni moo di ay xaritam wala ñu dugg ci kër yi gisee ñi nga xam ne moo di ay famille wam waaye tak ñu koy ñaanal yal na ko yàlla yërëm xare ko aljanay firdawsi e fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ne ni fi la jógee ndax information bi ñu jot mooy que dafa demoon ngir sauver xale boo xamante ne ni mu ngi doon lap li nga xamante ni yàlla woon na la ci moom tamit mu daal ci ñaar waare ñàkkaale bakkan mu nekk ñaari bakkan yoo xamante ni rot nañu ci plage boobu ba tax ñun waa Wassare ak ñun waa People 221 ni ñu koy defee bu ñu déggee information dañuy dem ba fi nga xamante ni foofu a yi nga di xibaar yu leer yi sama caméraman yi bu baaxee ngeen topp ma rek ma giseek xaritam mi wala ma giseek famille am daal di leen tàllal micro ñu joxe ay kàddu yu seen doom jooju nga xam ne moom fi bàyyeekoo sëñ bi maa ngi lay la euh, Pape Abdou gannaaw ba ñu la jaalee Bouna mi nga xamante ni moom moo fi bàyyeekoo nekk xarit ci yow ginnaaw bi ñu déggee li nga xamante ni moo di xibaar bu tiis bi est-ce que mën nga ñu ñëwalaatal ci mbir yi rek exactement naka la demee. waaw Bouna sama frère la quoi sama xarit la sama lépp balaa ñoo balaa ñoo balaa ñoo programme affaire yi dañoo newoon si. affaire mooy plage bi. balaa mu ko programme dañoo nekkoon fële guddi si di waxtaan. ñuy waxtaan waxtaan ñun ñëpp ñun ñuy taxaw fépp ñoo doon waxtaan. di kaañante di jàppalante moom moom am idée quoi ne pour pas dimanche suma ñu dem plage yooyu noonu ñu ko bàyyi ma ne ko amul problème nañ dem fekk waxtaan bi neex na gars yi toog nañ waxtaan bi yooyu noonu ñu ne waaw nañ dem le man heure fekk na ma balaa balaa matinal bi maa ngi woon Ouest Foire maa ngi doon euh, yóbbu sama raq foofu noonu léegi damay ñibbisee noonu si laa jaar euh, koñ bi fekk leen kër ñoom sama grand bi bii bi fekk ko toog waxtaan ak moom mu ne ñu ngi waaj a dem mu ne ko ah xaw ma woo ji bi mooy kii taxaw fii pour ñu dem parce que moom si la bokkoon. léegi ma dem këram këram kër ñoom kii nii euh, pour wax ak moom ji bi ne ah mënul dem ma ne ko ah ah xaw dem suñu kër préparé ma ma demee suñu kër toog toog am xel ñaar mu ne est ce que man dinaa mun dem. ma garaaw xaaral ma toog rek si la la may woo mu woom ma ba ma wooyee ma ne ah kon garaawul bàyyi mu dem rek comme que moom programme naa ko pare te mënu ma koo mënu ma bañ a def ma ne kon nañ dem ñu dem ànd ak euh, yoro si oto bi ba ñu dem ñu ngi insisté di woo saay mais mënul dem xam nga léegi moom jotuñu ko léegi ba plage bi foofu noonu toog euh, ba ñuy balaa ñoo ngi ñu gis plage bi kii quoi agité mu xool plage ne yoro xool plage ne tey moom géej nu mel ni yéeme na de moom tamit mu ngi ñaaw ñot ne ah tey moom xam naa du ñu sangu ñu ne ah kon du ñu sangu ñu gaare oto bi di jël ay bagage pour mooy ñuy toog yooyu noonu wàcc ba ñuy wàcc yoro yéegaat ba mu yéegaatee maa moom ñu wàcc ba ñu wàccee noonu ñu wàcc ba toog bay toog may lijjanti bagage yi noonu jéegi saay rek gis ko muy saa yi jëm mu sànni ma bagage yi sama daw booy mooy lapp xaama daw jëlu ma ne ko non non xaar la seeraan ngay dem ma ma jël bagage samay bagage samay portable yëpp ma dénkaanu dem fekk moom jiitu nañ lu bëri moo ñu def. xam ne moo doon lap lanam la yéen àndoon wala. ñu dañ ko fekk foofu te booy mi ngi àndoon ak ay parents am papa ji moom mu jéggi saa rek daw jiituñu léegi ñun ñu ngi ñu ngi daw mais moom jiitu nañu mënuñu egg foofu noonu parce que ñun moment bu ñuy dem fekk na ndox mi ngi gën a yëngu ma ànd ak ñaari grand grand yi daa mel ni foofu la ñu liggéey ay nappkat lañ ko am fa lañ leen fekk ñoom tamit ñuy daw ñuy fay ñuy fay ñu ñun mënuñu egg foofu parce que saa bu ñu demee foofu courant bi yóbbu ñu feneen saa bu ñu demee courant bi yóbbu ñu feneen ñaari grand yi daw jéggi saa yi génn kenn ki noroon lab tamit génnaat nga xam ne ñii mënuñu. man maa ànd ak moom man maa mën a jàppale waaye dégg nga may jéem a contourner affaire yi mooy di jéem a pour dawee beneen sens léegi man mënu ma jaar foofu si laa jéegi saay tourner si yoro yoro woo ma ba mu woowee ne ma kaay jox ma téléphone ak yow ma jël bagage dem dénk ko benn maire fekk ñoo ñu fan fekk ñu xamuñu fekkeen kenn ñuy dénkaane rek yoro daw dugg moom moo tax ma daw si xeer yi dama demee ba si xeer di jéem a dugg mënuma dugg yoro dem ba foofu noonu ba mu demee ba foofu noonu moom nag jot naa egg. moom jot na egg moom jot na egg ba dépassé ko mais ba mu eggee moom dafa sonn parce que ba muy na moom si moom trop. fale faleegu mu dem. wax waaj dala xelam. Mhm. parce que xale booy bi balaa moo egg sax fekk na moom sauvé woon na xale bi mais ñun dañ ko bëggoon jàppale pour mu andi xale mu mhm. teewoon xale bi boot ko xam naa boot bi mu boot xale bi. looloo ko sonaloon xale bi da koy xoj yooyu noonu léegi Yoro ba mu demee foofu fekk moom bàyyiwaat na xale bi parce que xale bi déjà mun inconscient na na ne xale bi moom mënatu si dara mënatu si dara léegi mu taxaw foofu noonu Yoro di waxum naa ko dawal cinq saa def nànk heure yi nii nii mu mënuma la jàppale man mi sax sonn naa Yoro Yoro moo ma ko expliqué man instant yi nekk moom foofu maa ngi si côté bi di leen jéem a jàppale di wax ak ñoom moom expliqué mu ne mu ne ko mu ne ko waaw waaw maa lay fay man Jibi Diop Djibi Diop mooy mhm. xarit ki nga xamante ne nii tey moom moo fi bàyyeekoo mu nekk xibaar boo xamante ne nii lu tiis la ginnaaw sa xarit bi nga xamante ni jot nañu expliquer sax mbir yi naka la demee waaye mënatu ko yeggale ginnaaw ba ñu la ko jaalee ñu bàyyi la nga eggale mbir yi naka la demee exactement waaw comme lu mu leen wax rek après Yoro jéem na ko sauver mais bon mënu ko woon sauver ndaxte moom tamit dafa sonnoon courant bi dafa bëri woon trop mhm. après bon xale bi heure boobu noonu mu ngi woon ci kaw Paboune après comme que dafa sonn xam nga après xale bi dafa mujj suux lab léegi ba mu labee xam nga tamit rek bu na tiit xam nga ni ngay gis ku taamul gis nit ko dee nit ki dee si say lab si say loxo sax laa mën a wax léegi loolu ba mu amee yoroon ne ko dalal dalal mais saa waay instant boobu moom comme que kii lab na génn rek lay gis léegi nag après si la ko bul xeex ak ndox bi saa yi nekk di xeex ak ndox bi di xeex ak ndox bi mu naan ko dalal dalal dafa jékki-jékki saay bon amoon na euh, ku doon indi ay booy de sauvetage mm-hmm. léegi nag euh, kooku ba muy ñëw instant bu mu egsee si lu d'après euh, papa lu ma wax bon si la surux après ñu toog di seet koor gi après bon. leen bi. ñu ko après am ñu taxawoon si kaw ne koor bi feeñ na am na benn koor bu génne. Mm-hmm. ndekete kooru xale bi la après booy nuñ toogee ci biti noonu jaaxle. xam nga gisuñu ko ci la ko ndox bi génne ci seen kanam waaw di dellu santaat yàlla bu baax di wax ni ku baax dem na man mii dama ko ñee métti na torop mais après damay toog sax ne alhamdulilah ndax tey xoolal li ko wuy fii daa fees dell depuis démb ba tey te ndaw la vingt cinq ans dong la am man suñu xalaatee rek côté boobu loolu rek ñuy métti genre bu na dem na amul jabar amul doom te ku buggoon yaayam la tamit bu na ñun dañuy xuloog moom sax pare nga fasal ko kanam mais suba mooy ñëwaat wax ak yow ñëpp même chose dañ lay wax di wax rek ñëpp nañ ko ñaanal ndaxte tey mën naa ne sax lu tax mu dem lu baax la moom si lu baax la demee ndax di sauver nit ba far yàlla yàlla jëlaale sa baxen dañuy dellu rek ñun ñëpp naan alhamdulilah moo ñu ko joxoon jël nañ ko donc dañ koy accepté donc di wax rek ku képp ku ko mën a ñaanal ak foo mënti ñaanal ngeen ñu ñaanal Pape na bu baax ndax waaw man man Pape Bouna mënuma toog deux jours gisuma ko. ba jour boobu noonu le trente boobu noonu damaa yeewu tak damaa naaje yeewu ay midi mhm. laa yeewu bi ma yeewoo ma toog sama kër ma ndékki ma dem kër Pape Bouna sama maam dafa joxe woon ay plate ma ne ko kaay jàppale ma ma jëli plate yi kër ñoom Suzanne ma ànd ak moom kër ñoom Suzanne ñu pare mu gunge ma ba suñu kër na ma kaañ dem ci bibi ndax bibi day wéet kaañ dem wéetali ko te ñëkkoon na fa ñëw matin bi mais delluwaat na fa. fekk veille bi programme ne pour ñu dem plage. mais man après bu ñu toogee kër ñoom bibi di waxtaan naan ataaya man dama jéeg-jéeg saa dem sama yoon. dem toog si sama yeneen copain yi après si la ma ne si la ma papa mooy ku doon wax ñoo jël si si kaw ne ma heure bi jot na nañ dem ma sol samay daalu wàcc escalier après ne ko man. booy dem leen sama yaram neexul dem leen dem leen Pa Abdou ne ma nañ dem après si la jëlee oto beeg yoroo dem jëli papa. léegi papa xam na fu ma nekk man sax nee naa ko lu tax woowoo ma papa bu mu ko bu jëlee papa mu ñëw ba fii gaare ne yoro jibi woolu jibi yoro ne ko jibi ne demul mu ne ko par la force day dem mu ñëw ba si sama kër la mujjee. mu ñëw suñu kër ne ana jibi gars yi na ko demal ci kaw mu dem ba sama néeg wàccaat mm-hmm. ne leen wax jibi fekk ma ko fi day dox rek ah. ay dix dix-sept heures quarante six la ma mujjee woo bon dix-huit heures et quelque ñu woo ma ne ma faatu na mais alhamdulilah. nga yeggee xibaar bu tiis bi nga xam ne moo daal di dal ci seen kaw naka lañ la ko informé. waaw man dama toog sama téléphone di sonné ku nekk naan ma foo ne parce que xam nañ ñi ñooy nekk ndax ño jotuñu ñeneen mm-hmm. dañ ma njëkk woo appel ne ma foo nekk. mooy kii nii papa tantam moo ne ma woo daf ma woo rek na ma aloo foo nekk ma ne ko man maa ngi sama xarit yi mu coupé sañu benn grand bu ñuy wax Sidiya dafa coupé tak mu waat ma après bon ne ma tamit foo nekk ma na ko maa ngi nii ak Sila mu coupé moom tamit ma woo Sila ne ko lii du jàmm wooteel damaa wàcc ci koñ bi gis ñu toogee rek man xaw ma lu xew pour man papa sax la affaire yooyu noonu après si lañ ma bu Buna moo lap mais man gëw ma ko ma jël téléphone woote ne Pape Abdou Bouna daa lab mu ne ma waaw di jooy ma ne ko dalal ma ne ko lab xam nga dafa am mais est-ce que daa faatu mu ne ma faatu na bu ma ne faatu na nag heure boobu man xaw ma xaw ma la laa war a def xawma dama war a jooy xaw ma dama war a ree mais dañuy dellu si yàlla rek ne alhamdulilahi rabbil alamin moo def lu gën rek. d'accord ñaanal ko bu baax a baax a baax jërëjëf. Bouna. même dëjëm nii sa gars yi boo xoolee ñu bëri ma lañ doon masaw parce que dañoo xam ne maam moom matin midi soir ñooy nekk moom maanaam xoolee ma ko bët rax wala dara moom maanaam moom sama diggante moom chaque fois dama koy ne man sa papa laa moom bët boobu la ma xoolee parce que moom dëpp muy nekk xale bu ndaw laa leen yar moog booy nekkoon fii nii yëpp ñu taxoon sànq fii nii nii même génération bi ñëpp ñoom ñoom ñoo defandoo lépp maag ñoom ba chaque fois sa que man booy bu may ne xale ba léegi ñoom laa yor école football ba ñu màgg nii nii. bilaay walaay loolu moo taxoon xam nga rek keroog bu ma déggee lii daf ma métti trop waaw daf ma métti trop parce que mun naa ne maa ko jooy boo xoolee métti woon na ma nag comme gars ni ko expliqué rek waaw boo xoolee maak moom euh, dimanche bi la day tàggatoo rek dimanche bi daa xëy matin bi comme moo gars yi ñoo fa nekkoon ñëpp ñoo fa nekkoon sama seede bu jékki-jékki ñëw indaal ñaar sama euh, ñaari ñaari ñu xamante ñoom maagandoo mi yoro ak Pape bi ñu toog waxtaan waxtaan waxtaan ba si yàgg ñu dem ay deux heures ñu ñëwaat mu indi mu indi ñoom trois ñëpp indi leen mu indi yoro mu indi jibi indi Pape bi ñoom ñett fekk maa ngi toog zee sama booy bi ñu toog gaale ñu teg caayin ñu toog naan waxtaan japise ñu dugg si ay cadre ay bi nii nii ñu wax parce que moom dafa bëgg koñam waaw loolu moom waaw moom jikko boobu maanaam boog maag moom loolu ñuy jaayante maag moom waaw parce que man chaque fois dama ko daan ne gars yi bu ñuy wëri ay ay ñun dañu wëri nit parce que ay ndaw lañu te ndaw moom boo nekkee fenn defoo fa dara rek serviroo fa dara maanaam style boobu la demee moom chaque jour bañkat waaw moo ta bu ma déggee maanaam dee bi ni la dee rek dama ne non si bañkat la loolu dëgg la am na lu ma resooree foofu mu ngi foofu ba léegi ñu toog naan ataay waxtaan lu bëri maa ngi moom yoo xamante ni du mën a wax sax mais gars yi ñu gën foofu moo tax bu ma toogaatee même pas deux heures de te fu ma toog bougé ma fa de. fu ma toog toogoon moom bougé ma fa laa toog ba mu dem mu tàgg ma maa ngi dem ma toog te nouvelle bi fa la ma fekkaat ma toogoon la ma fekkaat. Michel ñoo ne moom dégg nga lu xew mu ne ko lu xew a lal mu ne ma Paa Bouna mu ne ko Paa mu xool ma bëgg jooy ma menacé ko booy bi dem ma dara mais sama xel xaw na ñaaw sama rakk bi ñëw woo ma ne ma dama la mu ne ko ma teel ko ko lu xew lan la Paa Bouna la moo ko dal mu ne ma ah, naa gars yi ma naan dafa dee wala dafa lab wala la ñu ne dafa lab xam naa heure moy mooy bëgg dalal ma ne ok ma yéendu koñ bi gis boo yëpp toog triste ba léegi gëw gëwuma ni maanaam dem na ba léegi de maa ngi ay lab la nii nii ñaax fay day nii xam nga rek ma ne cóor ji ma toogaat sixième sens bi di taw di daw di daw di daw ba guddi bi maa jékki-jékki gis ndeysaan ramo di jooy yuuxu ma ne noo kon dëgg la bilaay walaay dëgg la te waaw mu am lu mu amoon lu ma métti trop trop trop trop boobu noonu trop trop trop koo xamante ne koñ bi gars yëpp man lañ ko xamee boo dégloo boo ñu ngi koy waxaat sànq fii nii si man lay nekk matin midi soir affaire de ASC yi maa ko si dugal affaire de foo xamante ne luy jaayante geek ay dem lépp maa ko fay dugal man chrétien la moom musulman la moom taalibe Serigne la mais gars yi xam ko fii ay cant lépp moom si dugal fu may dem moom ay cant nii wala dara ñu ànd maa ngi moom suba ngoon dund lu nekk maa ngi moom maa ngi moom ndeysaan mu jàpp ma xool si man lii xool si man lii wala dara waaw Euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekkoon ñoom jotoon nañu informer sapeur wala. waaw parce que mbir mi am man boo xoolee man ba guddi bi sax laa woo sama ñaari booy àndaloon si laa leen woo ñëpp ñoom màggandoo si bi fii nii nii te boo xoolee man lu ma gën a garaaw sax ñoom bu muy dem ñu mu tànn ànd ak ñëpp ñu mu nekkaloon ñëpp boo xoolee ñoom la màggandool si laa ne gars yi yéen kii instant wàccatu leen dara parce que fay na leen lépp parce que ba muy dem yan la mujjee nekkal yan la woo yéen ay CDM te yàlla na ko yóbbu seen kanam la génne bilaay walaay sapeur dégg na après la ñëw fekk koor bi génn na pare parce que moom daa jëli xale bi dem foofu noonu lab bu mu labee kooru xale bi gaa jëli nañ ko moom kooram kenn jëli ko moo ñëw moo teeru si bilaay walaay kooram moo teeru si ñëw mën na leen desaan lu waroon am la rek hmm. dee na deewu jàmbaar dee na deewu martyr su ma la nee man nag météo man waaw ko jot euh, jot ci koor bi ba denc ko wala mu ngi ci hôpital waaw jot nañ si koor bi jot nañ si démb démb euh, ma dañ ko mujjee yóbbu Touba sax Touba lañ ko mujjee robee foofu waaw mais. ñaata at bu na boo xoolee environ mu am ay vingt cinq ans xale ndaw la. am jabar jotul am doom. amul jabar amul doom foo ko fekk moom desaan moom liggéey rek da nga koy ne bàyyi tax jabar sax mu ne naan bàyyi ba amoon liggéey ba si kanam rek affaire yooyu noonu bilaay walaay dama bëgg am comme gars yi li ñu am léegi lii maanaam dafa teel a gëm boppam. dafa nekk xale boo xamante ni dafa teel a jaayante maam du liggéeyal kenn mboom lay liggéeyal foo ko fekk mu ngi si ay yi wala si mbuto yi lu ko si lay liggéey esan mën nga ñu wax yenn qualité rek moo la gënoon marqué ci euh, buuna moom maanaam man buuna lu ma gën a marqué si moom boo xoolee pourtant sànq ba léegi si wax maa ngi koy wax maanaam dafa nekk nit boo xamante ne dafa maanaam dafa original quoi nekk lu mu waaw lu ma woon ginnaaw moo tax may wax nii de mais moom xam na ko parce que man daanu ma ko may dara gaay laay gaay day def lu baax sax ma ne ko nga def baaxul pour lan gën ko motiver mu defaat lu baax ñoo si man ne ma léegi li patati patata xanaa xamoo lu mu dem sauver xale bi nii nii ndeysaan mu des si nii nii wax naa waa kër gaay buñ toogee ma ne leen nga bu ko réussir woon suñu kër lay jiituwaat kër lay jiituwaat ñëw ne ma xola def naa ak léegi lii waaw parce que xam moo tax hmm, dama xam jikkoom te dama xam ne euh, moom mooy kan waaw dama xam ban genre la non maa ngi moom maa moom maa ngi moom daañu woon réeroo maa moom maak moom daa ñoon réeroo musuñu réeroo maak moom musuñu réeroo si àdduna maak moom parce que moom déggoo lépp lu muy def lépp lu mu bëgg a def si man lay njëkk ñëw wax ma ko am na ay place yu ma soloon dem ba may dem démb rob bi démb ndeysaan ñu ànd maak moom ba ti leen temps plastique daa xaw a cher ay daal plastique moom day bëgg yooyu noonu su ma solee lii mu sol loolu mais dañoo egg foofu noonu jënd ko maam mu sol ma sol ñu dugg marché marché euh, pétentiel maak moom man nag am naa benn gaañ bi jaay ay yére yu ñu dugg ma tànn ko mu tànn mais ba mu jékki-jékki ne ma demal loolu teg bokk na si moo am na tournoi bu tëgg temps na mu gën ma si motivé maanaam koñ nii sa xarit lañ may wax ak keneen ak keneen ba seen ñëpp luñ may wax lépp lépp lépp bilaay walaay métti na ma torop torop torop torop mais ñaanal waaw fàttali ci kàddu yi nga xamante ne nii dénk na la ko yan kàddu rek moo ci gën a marqué. ndeysaan kàddu bu ma si gën a marqué boo xoolee mooy ren sànq yi mu ngi doon sànq waaw nee na ma Zé koñ baa yi nii nii koñ bi yow da nga ko war a ñëw waaw def comme gars yi wane sa bopp si koñ bi affaire yooyu noonu xam nga rek ma ne ko man bàyyi man dew ma fenn maa ngi fii mu ne ma non da nga war a wane sa bopp léegi si koñ bi nga bokk gars yi ñu ko doon seede keroog sama kanam nii nii yooyu la ma mujjee wax nii ne ma maa ngi dem waaw ma ne ko cóoru jib incha allah yàlla baax na bilaay walaay ma ne ko maa ngi fi dew ma fenu dew ma fenn waaw. Ah, tey yan kàddu yu seede rek nga ñu mën a jox ci moom. Euh, man mën naa wax que ni Pa Bouna euh, defe naa man maa ko jaale nit ñi parce que balaa moo décédé man la mujjee gis maak moom ñoo mujjee taxaw parce que dama dem ci rond point Nord Foire bi ma ñibbi ma fekk leen ñu taxaw sama buntu kër parce que mook sama mag bu ci góor bi ñooy ànd ba ma ko fekkee foofu mu taxaw may leen fan ngeen jëm ñu ne ma dañuy dem géej may leen tey ngeen bañ a dem géej parce que manifestation bi dañoo nekk ci rond point 26 bi. ñu ne ma keneen ki ne ma garaawul ñun dañuy vidéo rek ma ne ko non non bu leen dem ñu ne non dañuy dem mu xool ma après ñu taxaw foofu di waxtaan yàggul mu sëppu yéeg ci kaw terrasse bi. fekk ñu bàyyi ñaari bool ci suuf ma ne leen ma ne ko paa na mu ne ma naa ma ne ko kii de yàqalu leen añ mu ne ma lu yàqaluñu añ ma ne ko déedéet yàqaluñu añ. après muy wàcc sama escalier nu daje ma ne ko yéen a ngi dem de mu ne ah garaawul bàyyi ñu dem ba mu demee matul sax trent minutes ñu ne ma ki nga taxawloon fii léegi dee na ma ne mënuma koo gëm loolu laa ci jot ci am. bañ la annoncé loolu nga xamante ni ki nga taxawaloon yàggul dara ñu ah, woo la annoncé la ko ne moom daal dinay génn àdduna. Ah, ma am lu ma metti torop ma jooy ba mënatuma ma xam ne nit ku baax parce da comme comme kii ni mu ko waxee dafa nekk cag may jaay ay produits ay savon ma ne ko bu mardee de dañ ngay ñëw ñu yóbbu savon yi ñu livré ko mu ne waa ok bu mardee dinañ yóbbu savon yi ñu livré ko laa ci am. yan jikko moo yan wala qualité moo la gën a neex ci moom. Ah, mu nekk xale bu baax comme lu ko ñëpp seedal xale bu yaru euh, defe naa amul ak kenn xaar ma yàlla. defe naa deewu paabu bu bi mooy li ma mës a métti ci moom ndax mësuma am ci moom lu ma metti euh, mu nekk nit ku baax nit ku yaru nit kuy baax a baax foo ko yónnee mu dem boo ko yónnee bu amul sax dara naan aw ma bu ma fay dara waaye jox ma rek li ma paas dem mu nekk xale bu baax mook sama mag bu góor bi ne naa leen benn leen saa yoo xëyee suñu kër nga koy fekk saa yoo xëyee suñu kër kaf ak rek laa ko xamee macha allah. yan kàddu moo la gën a marqué ci moom. kàddu yu bari marqué na ma ci moom parce que dama ko doon tooñ am samay cousine ñu nekk foofu ma naan ko yow de diw laa lay may wala diw mu na ma ah naa nekk de wala su ma waxee benn affaire mu ne lu bàyyi yooyu waaye bàyyi yooyu xam nga xale damay nekk gi rek di leen ruube naan diw yow de yaay génn ak diw mu ne lu pourtant na nekk de lu baax rek laa ko xamal rëy ak kaf rek laa ko xamal su ma waxee mu ne lu defal loolu waaye loolu war naa mën a ne ñu liggéey ma ne ko après nga jox ma tarif yi distance bi pri livraison bi ñaata la mardi lañu waroon livrer bañ taxawee ci buntu kër ma ne ko paa bu ne kon mardi la ñuy saabu ma mu ne ma waaw. bés boobu kon xamuñ laa xam su ma doon gis kat ne kon bés boobu la ma doon tàgg. d'accord ñu ngi la koy jaale bu baax a baax. merci merci merci